Assalamualaikum warahmatullah mbokk yi man seen xarit sa Diéth Diop maa ñëwaat di waxtaan ak yeen. Di ko defaat nak comme niñ ko defal won Demo di waxtaan ci assemblée nationale bu bes bi Dem waxtaan nañ ci walum opposition mi di nak ñuy waxtaan ci côté pouvoir bi bon lool nak defuñu ko pour équilibrisme eh, quoi ça dit que pour wone ne wax nañ fi dañuy wax bon man mo man mo yoy quoi bon man man man mais ben, le en matière de opinion publique moi voilà l'opinion est par définition subjectif. donc on est que d'ailleurs quoi donc laboratoire euh, euh, des recherches voilà non, on n'est pas aussi euh, dans la perspective à m'a parlé. Donc euh, voilà, dañuy tok rek xalaat wax li ñu xalaat partagé ko donc euh, donc voilà donc que nous di di di jema a équilibré wala di jema objectif wala di jema non non non dañuy wax suñu xalaat quoi dañuy wax suñu dañuy wax suñu xalaat suñu gis-gis donc lu ci à partir de maintenant de nos éléments d'observation donc à partir de nu ñuy observer en politique nu observé la classe politique bi ak ni politique bi doxé donc voilà ñu à partir de l'observation ñu xol ñun luñ ci jàngat luñ ci luñ ci gis partager ko ak suñu bokk sénégalais donc voilà amuñu ay souci euh, d'équilibrisme ak euh, objectivité que you can xamul quoi donc nekkuñu si yooyu alors mais comme mais nag c'est très intéressant ñu ñu ñu jàngat mbir mi si ñaari côté alors peut-être dinaa surprendre ñu bari mais ni ma ko yàgg di waxee pouvoir bi ñi nekk ci pouvoir bi rawatina Amadou Ba rawatina Aly Ngouille Ndiaye rawatina Aminata Touré mais dañoo am fulla jël affaire yi c'est-à-dire que le pouvoir les ténors du pouvoir waratuñ nangu Macky Sall nekk le maître du jeu parce que bokkatul ñoom ñoo war a dem wuti pouvoir bi en 2024 donc Macky de plein de soutenir c'est juste un soutien à mën pour nous donc nous ñoo mën nous organiser woo nous ni comme ni opposition bi intelligence stratégique def intercoalition euh, certainement aussi à l'Assemblée nationale nous avons deux groupes am deux ou trois groupes ensuite créer un intergroupe mais nous avons la ñu war foule. amee pouvoir bi l'Assemblée assemblée war trois groupes un groupe d'Amadouba, un groupe de Mimi un groupe de Ali Maintenant, c'est maintenant intergroupe Call aussi en toute objectivité nous avons naka lañ contraindre d'abord le président Macky Sall pour renoncer à un troisième mandat ça c'est un deuxièmement nous lañ mën a ba réconcilier avec les Sénégalais que Sénégalais baignent les leen c'est-à-dire que nous bañ a dem ci élection présidentielle 2024 avec le passif de Macky surtout avec des velléités d'un troisième mandat parce que troisième mandat les plus ma sell ma doon liggéey ci rom mi daf koy c'est-à-dire que bëgg naa dem troisième mandat loolu waxna ko waxati ko Macky Sall bëgg na dem troisième mandat c'est fini c'est mort il va perdre le pouvoir c'est-à-dire que par A ou B il va perdre le pouvoir. Parce que il va se retrouver au deuxième tour avec Sonko. Et même si par miracle, même si par miracle, il parvenait à éliminer Sonko, c'est-à-dire que n'importe quel barreau au Sénégal, n'importe quel, euh, moi, le gars de barreau là, lui, pour lui, éliminer l'opposition, bien, pour, nous, nous, nous, retrouver derrière un barreau, qui gagner, Donc, donc, sous demain élection, des pertes. Ça, c'est clair. Et maintenant, sous, sous Macky Sall deuxième élection, deuxième tour, il y a des places là. Pour le moment, la place de Sonko est quasi assurée, sauf miracle. Donc, mais reste une deuxième place à prendre. La deuxième place boobu qu'un kenn jiitoogul kenn c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la deuxième place au deuxième tour mais le jeu est ouvert ku gën a y yaa koy jël Moham, xam ci côté opposition moo xam ci côté pouvoir te ñu nekk ci pouvoir am un sens trop pour occuper cette deuxième place là au deuxième tour te bu Macky Sall le pouvoir Nous ñu parvenir sur la base des valeurs jaay Sénégalais yi ngor ak dignité ni ñun ñun ñi nekkiti bu pouvoir bi duñ nangu réew mi di am ay quatorze morts ak ay onze morts comme ñu amee woon en deux mille en deux mille onze Macky Sall ñoom moom a ànd defal nañu xëy na ay teraanga jox nañu ay post nangam ak nangam waaye nag maanaam jeex na <laughs> maanaam jeex na ñooñu bu ñu amee ce courage la tenir ce discours contraindre ko mu may dem mais mën nañu reconstruire wu ak les Sénégalais donc un deuxième tour euh, Ousmane Sonko Ali Ndiaye, ça sera différent d'un deuxième tour Ousmane Sonko Macky Sall, un deuxième tour Ousmane Sonko Amadouba sera différent d'un deuxième tour Ousmane Sonko Macky Sall, un deuxième tour Ousmane Sonko Aminata Touré sera différent d'un deuxième tour Ousmane Sonko Macky Sall. parce que Ousmane Sonko aussi ni mou xaw degré politique mais mais su le sens trop su le sens trop su deuxième tour ça sera ça peut être du tout du tout sauf Sonko. Parce que parfois, Sonko a un discours un peu clivant. Donc, ce qui fait que ni, il y a des, il y a, y a, y a des risques pour que Moudef soit plein de voix au premier tour. En deuxième tour, de bénéficier au trop le report de voix. peut mon mun na am ak xaar ma yàlla ñenn ñi mu toll foo nga xamante ni mais ñooñu dem bu fekkente ni eh, y' a plus aucune honte parce que Macky Sall su fekkente ni bokkatul mais il n'y a plus aucune honte pour nga dem soutenir candidat du pouvoir fekkente ne même boo da nga dans l'opposition fekkee da nga nekkoon dans l'opposition parce que li li nga xamanteni mom le la sénégalais mënul comprendre moy nga soutenir la troisième candidature kooku mom politicien bu ko def rek moy dee <coughs> mais su troisième candidature amatul mais ñom mën nañ am ay soutien partout Interno Alcantara, par exemple, mais pour soutenir un Mitre au deuxième tour, pour soutenir un Amadouba au deuxième tour, pour soutenir un Alinguinia au deuxième tour. donc <coughs> euh, Abdurrahman Diouf la même chose donc le jeu sera ouvert donc nous avons am courage imposer ko maintenant ba ñu tombé dans le piège de Macky Sall parce que le piège de Macky Sall Macky Macky dafa travailler sur entre beaucoup sur beaucoup de choses parce que Macky dans le schéma de contrôle du pouvoir man moo ko jàng dafa jàng dafa dafa travailler sur sur deux choses ben bi mooy fexe que ku ànd ak moom doo pare c'est-à-dire Macky Sall dafay fexe que yow boo ànd ak moom doo pare pour des élection yow kessé donc dafa dafa leen di daf leen di placer devant l'effet accompli bëgg bu ñu demee ba ci cappaandaw ga mu ne leen ah mais yéen même su ngeen bëggee préparé wu leen mënu leen dem donc su ngeen demee du ngeen am dara donc jàppale leen maa fi sës donc loolu la leen di bëgg def parce que xam na ni une élection présidentielle mënoo ko préparer en moins d'un an sérieusement mënoo ko préparer en moins d'un an donc lu mu leen mën a retarder ñoom ci seen préparation élection daf koy def ba ñooñu duñu pré duñu pré c'est-à-dire que au 2024 ku ci def sa évaluation ne wax dëgg yàlla am ci je suis pas prêt donc nous, nañ fexe buñ tombé dans ce piège là <laughs> buñ tombé dans ce piège là bon beneen bi nga xam aussi que Sall daf mais loolu c'est par rapport à l'opposition Moi, fexe ba du am leader opposition bu Mac bu muy jàkkaar mais là, nous, ñu ko defee Karim def ko Khalifa bon bi mu ko bëggee def Sonko la nature a horreur du vide malheureusement pour lui sottewul et heureusement pour le peuple sottewul parce que là, c'est une catastrophe Et même mu sotti woon mais il aura en face de lui le mécontentement populaire donc loolu ñoom lañ ko bañ waaw nañ ko bañ taxaw courageusement né Macky Sall sa troisième candidature du fi am ñun pouvoir suñu mëne am ben candidat xayruñ suñu mëne am trois maximum c'est bon au deuxième tour trois yoyu am un programme minimal il se retrouve au deuxième tour plus maintenant que ko ñu jappalé a dans la société civile euh, et même dans l'opposition ba pare ñu def li ñu def ils peuvent avoir la deuxième place au deuxième tour Ils te lu leen Sonko di au premier tour mais mun nañ ko rattraper au deuxième tour parce que comme ni l'ai dit, si Sonko bu discours avec son discours un peu clivant là bon du ma ne du report de voix mais report de voix bi effectivement parce que Sonko dama koy souvent <laughs> nini, ñi nga c'est c'est la grande masse qui compte c'est la grande masse qui compte mais aussi et euh, euh, le fait que aussi am ay leader yu bari yu la yu la yu la yu la def confiance loolu dina rassurer la masse waaw ah, loolu dina rassurer la masse parce que leader yu bari nangul la comme Idriss Seck nañ ko nangulé won en 2019 mille dix neuf dina créer un effet d'entraînement parce que dina tax ba masse bi xaw a rassurer parce que du du du du ñàkk ku nga xamante ni na ma samba gis ma samba ànd ak yow mu ah kon de sama xel dal na ginnaaw ma samba ànd na ak moom donc loolu dafay l'ol da fay jouer donc pour euh, pour résumer pouvoir bi créer trois groupes parlementaires Aminata trois am ben groupe bi son camp Aly Ngouille Amadou bam euh, voilà ensuite nana naa ñu xool ñoom ñett aussi ñu discuter. génn ci Macky Sall xool kan la ñuy def président assemblée s'il le faut ñoom ñett ñooñu ñu convenir ku nekk nekk président de groupe ñu xool un élément neutre ñu def ko président assemblée en tout ñoom nañu seppi loxo Macky Sall sur les enjeux de pouvoir dañu am courage boobu ñu def ko suñ ko defee mën nañ garder le pouvoir comme ni ko Sarkozy defee woon sax Chirac parce que ku nga xam ne ne Chirac Sarkozy avait imposé à Chirac mais sa sa candidature en 2007 loolu nag Macky Sall jeexal na jeexal na voilà donc lii laa bëggoon a wax ak yéen di leen sant di leen.